ami internet Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu am mbégte bu baax a baax del seeg yéen seen site thiesinfo.com ñu ngi nag euh, fii nga xam ne nag moo di àllu kaañ àllu kaañ nag ko waxee euh, xel yi dafay dem ci ci rab àll yi àllu kaañ koy waxee xel yi dafay dem également euh, ci mboolem garab yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu fekk fi nag quelqu'un koo xam ne ku la ci biir Thiès mais également ku ràññeeku la ci biir Sénégal Thierno Moussa Sow mi nga xam ne nag da yëngatu ci wàllu médecine traditionnel ñu ñëw nag fekk ko ci digg àllu kaañ fas yéene waxtaan ak moom ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci wàllu médecine traditionnelle moom la ñu fas yéene jàkkaarloog moom waxtaan ak moom fekk nañ ko nag euh, fii ci àllu kaañ nga xam ne nag donc ci digg-digg àll bi la ñu nekk vous allez découvrir avec nous ensemble ñu dem xooli ko waaleykum salaam wa rahmatullah Sow Sow ñu ngi lay ziar bu baax. lii na nga ñu ngi lay ziar bu baax a baax. dalal ak jàmm. ñu ngi lay ziar baax noo def. maa ngi sant yàlla bu baax. naka coono yi. waaw sant yàlla bu baax ah sëñ bi fii ñu la fekk moom ci ci àllu kaañ ak ruq bi nga génne euh, laataa loolu nuyoo ak ñi lay ñi lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki ñu ngi leen di nuy di leen siyaar kenn ku ne sa tur ak sa sant di leen wax ne rek bismillah yéen fii ci Thiès Info ñu dalal leen ci seen àllu Thiès. wan leen lu bees incha allah. acca moom la ñu fas yéene waxtaanal dañ koy bàyyi mu mu dem toog bu ko defee rek ñu fas yéene seq ak moom waxtaan gis ngeen nag euh, fi nga xam ne euh, fi lañ ko fekk ci biir àllukañ tey ngeen nar a découvrir euh, lu extraordinaire ak Thierno Moussa Sow. voilà ni ni ma leen ko waxee woon ñu ngi nag euh, toog ak Thierno Thierno Moussa Sow ci diggu àllukaañ nag euh, la ñu toog gis ngeen euh, garab guy gi nga xam ne donc cosaan la fii ñu toog nii Thierno asalaamaaleykum maa ngi lay dellu la nuyu di la ziar di am mbégte ci nangu nga nangu ñu dalal ñu si Thiès Info. jërëjëf maa ngi lay fay di fay mbokk yi ñuy seetaan yëpp di la ñaanal jàmm di ñaan yàlla na yàlla may jàmm. fii ñu nekk nii mooy fan. yaa ngi ci digg àllum kaañ fi tax ñu naan àllum kaañ déggoo oto riir déggoo lu dul ay picc yu sab gisoo lu dul ay garab yoonu jur wala rab wala ndox yoon yooyu rek nga fi gis fu rab jaar fu ndox jaar wala fu ak jur jaar waaye tànku nit sax bariwu fi yoonu oto boo fi gis maa ko fent fi mooy àllum kaañ fii fii wóorul de Thierno fii ay rab ki àll moom yooyu moom vraiment ah? waaw boo bëggee xam rek da ngay ñeme wéet xam-xam ci wéetaay lay jóge yaa ngi ci wéetaay nag yaa ngi foo xamante ni fii moom loo ma laaj ma tontu la te du yàgg incha allah taala euh, wax nañu ma ne euh, luñ ma luñ ma déy laataa ma ñëw ñu ne ma euh, Thierno musaa boo demee fekku àllu kañ rab ya la fa nekkal jinne yéeg mala yéeg loolu moom Thierno nan nan nga nan nga mën a dundeek loolu ci ci àllu kañ yow dëgg na nga fiddee xam nga yow am na lu la si yàlla yàlla sunu borom won gis nga fi ñoo xam ne jëmmi nit lañ def boo ñemee nga filme leen ñi ngi fekk seeni bagage nekk fi ay at di fi tawte te ay doomu aadama lañ leen mën a tuddee bu dee gisoo leen nga wax ne gisoo leen balaa nga egg si fii am na leneen lu fi nekk loo xam boo ko gisee di nga xam ne fii du man rek maa fi nekk te fii ku fii ñëw da ngay motal ba pare soog fi mën a ñëw. waaw garanti moom yow yaa ko yor man ak aada jatu ñu ñu àndal ci caméra yàlla sunu borom mooy rek garanti moom moo ñu garanti ñun ñëpp yàlla nañu yàlla sàmmal boppam incha allah dinañ ñibbi si jàmm. lan ci bu ñu doon wax tey euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan kan mooy Thierno Moussa lan nga ñuy wax. li ma jàpp daal mooy benn taalibe la bu dëkk Jandeer euh, nekk fa di fa liggéey ci lépp luy wàllu développement ak wàllu xam-xam loolu rek laa jàpp waaye nit moom mënut xam boppam a cent pour cent. fii nga nekk fii kenn du fi defee médecine traditionnelle. fii xam-xam lañ ciy defee wàllu faj. mais mais lépp a ngi ci biir quand waaw fii li fi nekk fii fanaayukaay la. da nga fiy fanaan. keneen sax mun na fi fanaan. non yow laa danga nga fiy fanaan. waaw dal naa ko def de. fii warul de. wóor na sax nooy def ak jinne yeeg rab yeeg. dama wax boo fi bëggee fanaan nooy def fii boo fi bëggee fanaan jant na la fi sooyee boo ñëwee nga teg fi li nga fi war a teg yëpp. daal di jóge fii li jege garab yi nga dem toogi fële ci montagne yële nga xool ba jant so benn doomu aadama bañ fi nekk ko xamante ne xam na ni fi ngay fanaan. est-ce que yaa ngi fi nga jullee fi timis boo fi jullee timis nga fexe aussi ba sa julli timis boobu mu ànd ak dal mooy sa mooy sa kirlaay ba jullee timis ba pare nga daal di toog nag léemu bu fekkente ne soxla moo la fi indi. fii mosoo fee mooy yàlla mosoo fee sàcc mosoo fee atte kenn mënoo fee njaalo fii ab àll la nga ñaan yàlla sunu borom borom xam-xam yi nga dégg yëpp na nga jàngi seen histoire fii ci réew mi ci ga ñi ci sanc mën yëpp ci taatu garab lañ sañcee ci àll lañuy ñuy sancee boo fi nekkee nag ñaar boo fi indiwaalee feebar doo ci génn boo fi indiwaalee yenn xiif doo fi génn boo fi indiwaa nga tiitaanga tuuti doo ci génn boo ci indaale xel ñaar doo ci génn dag yii yëpp danga koy dagaase ba pare am dal am wér xam. nga bañ fi yow fit googu noonu mu ngi mu ngi ci yow. xam nga loolu boo koy sikki sàkk suñu émission du mën a sori. fii xam nga gis nga fi yoon. fi amul marché. waaw gis ndaw de moom. Hmm, la. yu ngi fiy jaar réer nga. Hmm. ku la teg ci yoon. jeex na. boo bëggee ma wan la fi garab yoo xamante ne bi ma fi dindee léegi mot na juróomi at mun naa la fi wan ay saako yoo xamante ne taw na fi tawaat ci laa doon toog fii ci biir àll bi te du nekk ci place bi boo fa demee di nga gis ne saako bi mu suuloog léegi kenn xamul kañ la parce que ban mi ngi ci kawam ci laa doon toog période sedd jotee fii boo fi toogee liggéey fi sedd ngelaw li da lay rey yow yow yan xeetu yan xeetu liggéey nga fi nga fi liggéey ba mu jaral la nga bàyyi dëkk ba ah, bàyyi sa kër ñëw ci àll bi wéet fii ah, ban xeetu euh, liggéey moo la fi andi dëggantaan. xam nga taxi. taxi xam nga ko. xam nga taalibi. taxi boo ne ko eh ñett mun nañu taxaw. taalibi boo ne taalibi ñett mun nañu taxaw fii boo ne jinne balaa nga may minute nga am trace bu leer. jinne nga wax de sow jinne. fii bu fekkee ne bëgg nga wax wax rek direct ak communication bu leer ak ay jinne fii nga koy defee ci àll. am na jinne am nga jot li des ci jant soos soriwut hmm. mën nga utiliser caméra bi fixé ko kii dem kee dem jant soñu fi maag yow tey. ñeme kay. loolu boo ko mënee rek amul ngay def lenn. Ah. waaw loolu soo ko mënee. Adama mi ngi nii. mu tegale fi caméra man aw ma soxla fen mën naa fi am un mois comme ñooñu nga romb noonu ñu dëkk fi hmm. ma leen fi dàq dëkk fop kii ci àll ma ne ñooñu nga romb ñu weer nga wax de un mois dama ne la dama ne la man mën naa fi am atum lëm du ma wuti fenn lenn ci dëkk bi fi ñu nekk nii gis nga ñooñu fi nekk noonu hmm. gisoo fa ay bool de gis nga leen fi ñu nekk solo ñu sax ay yére kon ñooñu sa jinne yi la déedéet duñ samay jinne de jinne yàlla moo koy moom ku ñu moom du moom dara foo nga nga si ci lu ci jinne yàlla moo koy moom gaynde yàlla moo koy moom yàlla moo am lu mu moom nit créé wut dara bindul dara léegi nag lu ci ne dafa am nu muy demee dégg nga li ma nit crééwul dañ ko ñu bind mu ne laa maam moom dara da nga ko war a kañ nga ko créé man xam nga laa bëgg a xam Euh, euh, moment bi nga fiy nekk ah, di fi wéet yenn saa yi nga fiy fanaan yow jinne yi ngay waxtaanal wala rab yi ngay waxtaanal wala yow da ngay ñëw yore sa kurus julli wirdu après nga dem ñibbi. lan mooy rab. non yow moom am ngay rab. non lan mooy rab. ma yow ma sa rab yi nu mel. xam nga xamul rab rab baatu olof la rab mooy jinne baatu olof la dangay ngay dégg rab di wax jinne rab baatu olof la jinne alxuraan la nit yàgg na nekk ak jinne bul fàtte ne yonent yàlla yusufa jinne moo nekkoon kiyam moo yore woon nguuram yaa ngi dégg bul fàtte mukk ne doomu aadama yi bu ñu yëgee bu ñu yëgul ñoo jinne dañuy dëkk ci kaw suuf saa yu yàlla tuddee nit rek bu yàggee mu tudd jinne loolu di ma ko nangul ah? nit saa yu ko yàlla tuddee rek am na fu muy tudd jinne buy muslu sax bu lay wax nga muslu sax da ngay muslu ci ñaar yooyu. dama ko mën wóor ma ne dama koo mën man maa ciy teg samay condition nii laay liggéey heure bi laay liggéey nekkuma koo xamante ne da may fekk ma toog ci benn bërëb samedi dimanche ma toxu fii gannaaw suba déedéet fu ma nekk fa laay nekk. léegi ñan nga yaakaar ne tey bu buñ fi ñëwee nga nga faj leen. man yaakaaruma kenn. amul ñenn ñoo xam ne sax xëy na bu leen feebar bi dabee wala xel mu euh, euh, ñu tàggoog seen sago wala ñoo xel ma dañ jàpp ne ay rab leen jàpp comme que yooyu dafa bari ci dëkk bi wala ñu ne la jinnee la jàpp yow yan ñan nga yaakaar ne xëy na euh, mbir nangam bii bu leen dalee bu ñëwee ci yow dinañ seen aajo dina faju gis nga fii nit ku ñu dàq ci palaasam dina ma fi indi nit ku taxawal dara ba pare mu gis ko mu koy mab muy màbb mu nar ko ñàkk dina ma fi indi famille bu bokk ñoom ñëpp ñu tënk leen ci benn bërëb alalu doon na tax ñu nar a yàq seen àdduna dina mu fi indi ji xale yu jigéen yu tollu ci sëy ñu boole ñëpp samp leen fenn du ñu gis ku dikk kuñ gis ku ñëw ba nar a màggat doon amuñu ndax xam nga am na ñoo xamante ne. xam ne dañ naan ay rab faru rab lañu am ak ay nangam yooyu. donc xam nga faru rab am na dëj am na teg dëj nit ki mu toog di fàttali ñu koy def rek. nañu fàttaliku bés bu yuuxu jiwee fekk ñoom ñoo faatu ñu war a leen dugal ci pax lépp li gën a am solo mooy koo mënti doon na nga fàttaliku bés boo xamante ne yaa ngi yaa ngi kirist sa biir kër di teen wóor la ne kër gi nga tabax yaa ngi ko tabaxee ci lor ay doomu aadama te loolu lépp su ngeen nangoog su ngeen bañee liggéey daf koy def. te loolu ak jigéen ñiy xëpp deret fuñ toll. deret bi sotteeku saa yu ñu aaye seen deret di sotteeku saa yu seen jëkkër bu leen soxlaa seen deret di sotteeku musiba yooyu aussi yooyu moo ñuy indi fii du nag weer bu jot ñu ñëw fii walla semaine bu jot ñu ñëw fi dañuy am temps bi am jot bi ñu am yërmande ci ki nga xamante ne wax nañu ay soxlam ñu jox ko suñu kàddu ba pare moom moo ñuy indi fii lii may wax ku mu doy jëlal sama numéro téléphone ku mu doyul bu ko jël ma di la fàttali ne man menn man maa fi médecine traditionnelle boo xamante ne bi may débuté maa fi njëkk def ay direct euh, ay télé ki rajo mais teewut lu ma sentir dama koy def waa Thiès Info xam na ni suba dañ may fekk ci terrain politique bi ci fii ma dëkk ñoom xam nañ loolu gannaaw suba dañ may fekk may nettali ay histoire di jouer di produire ay film ñu ngi fàttali internet Thiès Info que ñu ngi toog ak cerno Moussa Sow euh, fii ci àll euh, àllu Kañ Thierno Moussa euh, wax naa ko sànq nga am loo ci leeral tuuti mais li nga xam ne dëggantaan moo lay jaral nga bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot ñëw ci fanaan di fanaan ci ci àllu Kañ bi yaa nga doon wax sànq yenn tawat yoo xam ne xëy na dafay faral di dal doomu doomu aadama. waaw xam nga ni ma la ko waxee lii li ñu fiy indi mooy nit koo xamante ne dafa xeex ba taxawal dara. moo xam entreprise la moo xam famille la ba yàgg yàq kat ñëw taxaw bëgg yàq yépp nasaxatal loolu dootoo mën a xëy da ngay tàng fa toll dootoo mën a dund ak sa famille dootoo mën a déglu say mbokk nga daal di bëgg nag sa àdduna yàqu nga yàq lépp loolu di boo amee seetlu ci sa bopp nga ñëw ci ñun mun nañu indi fii. nit ki nan lay mën a xamee ne loolu moom moo ko dal nit ñi dañuy faral di wax ni sax eh, liggéey la liggéey lay nekk boo xam dañ ko teg doomu aadama. xam nga liggéey foofu laa bëgg ñu taxaw waxtaan fi gis nga yàlla sunu borom bu nattoo sëriñ ñetti sëriñ ñooy liggéey nit ki jàng xam-xam ba pare amul xaalis amagul tur muy wut am tur day bëgg def naa nangam def naa nangam kooku mën na tas famille kooku mën na rey nit kooku mën na tas sëy kooku mën na yàq njaboot kooku mun na gàddaayloo nit mu génn parce que xamagul xam-xam lu muy jëriñ muy benn sëriñ ñaareel sëriñ bi mooy sëriñ bu ñu boo xamante ne dafa dem ba yàgg déggaat ay wax walla ñu xoqatal ko tiital ko mu am xam-xam mu daal di bëgg éliminer kii walla sëriñ buy fayoo xam-xam bor yaa ma waxoon di ma jox nangam ñu dem ba sa aaju faju joxoo ma ko ñetti sëriñ yi ñooy yàq ak màggatub sëriñ bu soxor am xam-xam ba pare xale yi raw la nga soxor ñooñ ñooy tas kër. Euh, loolu lañuy tuddee xam-xam bu ñuul wala. xam bu ñuul baat bi dafa jafe tekki xam-xam bu ñuul mooy bi lay teree am yow sëriñ bi nga jàng xam-xam boo xam dafa lay teree am gis nga ñiy takk yenn fas yi. bu buñ ko dee boo dee xool bu yàggee wee yi dañ dul sëq bu yàggee loxo yi dañuy lemu bu yàggee bu teggee mbaxanam dangay fekk karaw bi duppeeku loolu la ñu xam-xam bu ñuul dafa ñuul ci yow sëriñ bi koy def boobu nag mooy retourné ci yow sëriñ bi say doom di nekk ay lafañ ñii di làggi ñii di di dee yenn dee ñii di dof yenn dof yi ñii jékki toog benn place duñu mën a am dara loolu moo tax ñuy wax xam bu ñuul ci yow mi sëriñ bi ci lay ñuulee comprendre li ma la ni muy lafañalee say cër ni muy lore say doom ni muy yàqee sa kii ak ni ngay mujjee loolu moo tax ñu ne xam-xam bu ñuul bu ko jàng. Mhm. Euh, ci ci ci wàll boobu euh, nit ki bu ko bu ko bu ko loolu dalee nga xam ne taxawal na mbiram euh, mu dem ba un instant mbir yi màbb wala jigéen joo xam ne sax tuddoon nga ko sànq néegu sëyam mu am ci jafe-jafe bu ko jëkkëram buggee jot muy génn dara ju bari xeetu xam-xam yooyu yëpp Thierno Moussa daf koy faj. jërëjëf dañ ciy ñaan yàlla sunu borom te mi ngi ñu ci suturaal ci kàttanu yàlla sunu borom xam nga dafa am góor ñu xamante ne jigéen da leen di raw déglu mu bu baax jigéen da leen di raw mooy maa ngi am soixante ans xale bi mi ngi am dix-huit yàlla xiir ma ci mu bëgg ko te wóor na ma ne munta ne léegi nag tànk xale bi demul bu téqali ko sagoom mu daw wut si ma ñemewu ma ko ñaan ay mbokkam ñemewu ma def dara léegi nga daal di jël say oto taal wuti ay sëriñ di liggéey di liggéey ba ak nga yëg ne xale bi diw da koo bëgg bëgg boobu nga bañ mu nekk nga commencé di yàq si diggante mënut a sotti la ngay xëppaloo xale bi deret mun nga koy ñooñu dañuy yàq jigéen sax ba ñuy dem di jaay boppam amul benn jigéen boo xam ne ñàkk am wala ñàkk lekk moo tax ngay jaay sa bopp parce que koo ci gis doomu gor la mais nit ñi leen di yàqee la ba ñu dugal leen foo xamante ne dootuñu mën a baax dañuy jàpp sax ne jigéen ñi ànd di sëy sax loolu moo koy indi liggéeyu bon yooyu moo koy indi. ci ci wàllu ku bëgg kër aussi. xam nga bëgg borom kër am na ñoo jigéen bu juddoo rek dafa bëgg borom kër bu matee sëy am conscience tranquille mais Thierno xalu jigéen ñi nag nangu ñëw sëy léegi de xam nga. <laughs> non jigéen bu matee sëy rek. Hmm. quelque que alpha day bëgg sëy léegi nag li ci des mooy. am na ñu war a sëyal am na ñu mu bëgg sëyal waaye jigéen bu demee ba wel judd fi mu war a judd mel ni mu war a mel kenn munu ko ku ñëw ngoro waaye doo mën a def farata mooy mooy am na lu xew ku ne mën na ñëw topp la waaye bu desee ba joxe ba kàddoom ne léegi nag sëy moo des rek kooku day fëqi dàllam dem mu bàyyi la ak sa ngor te yow doomu nit ku baax nga ku ñu yar nga doo fokkat liggéeykat nga mais yow alxayr rek nga mënut a dégg te xëy na sax nekkoo nit koo xamante ne da ngay taamu wala da ngaa réyal sa bopp leneen mais alxayr rek nga mënut a dégg xam nga am na loo am. nag li koy indi mooy ñu jëndal la guro balaa sa sëy nag ma déglu bu baax ñu koy jëndal la balaa ngay sëy dem ci jàkk ñuy maye xam nga am na guro yi ñuy joxe nga jël ci guro boobu ci turu sëriñ bi doon ki doon xutbu sëy bi ak ñi ñu doon xutbu léegi nga xutbaat ci turu ndaw si dootul dégg alxayri parce que jël jotaay bale tas na nga liggéey ko nag ba moom ku ñëwate rek mën na ko topp di ko jox alalam waaye bu bu desee def jàkk rek ñàkk na jàkk lay bañ a gis loolu mooy liggéeyu bon yi nga xam ne dafa am benn day tere nit sëy ñaar nit jigéen dafa am âge boo xam bu ko dépassé sëyiwul mooy yàq nga àddunaam léegi nag même bu la jéggalee yàlla du la jéggal parce que da ko teree am njaboot ci ba mu ko waree am nga téye ko benn place mu toog fa ba xëy dem mën a bës yow nag nga defee ne def nga ndam bës dina jot bu nangu woon ngeen arrangé. loolu ci ci ban diir nga koy nga koy faje loolu su ñëwee rek dañuy xool xam lu ñu suul la wala luñ denc la wala luñ daj ci garab la wala luñ tàbbal ci teen la suñ ko xamee ci la ñu mën a xam effectivement moom lan la ñu mun ko dindi. Thierno euh, ñu dellusiwaat ci ci wàllu liggéey bi nga xam ne donc ci nga ci nga nekkoon sànq euh, euh, nit ki nan nga jàppee ne nit ki nan la mën a liggéey doomu aadama bi parce que toog fi nga toog rek demoo di ko jékki-jékki rek ñu ne diw dañu ko dañu koo liggéey ndax loolu mun na mënul teyal xelu doomu aadama yi. am nga téléphone. da ngay recevoir message fii fan lay jaar. réseau. réseau bi lan moo ko indi ay numéro nit dafa may numéro gis nga fii Sénégal xam nga takk xala moom doone ma amul ah nit mun lañ ko def loo xam ne day wàññeeku. loolu nan nan nan ci ban anam lañ koy defee nan lañ koy defee. ngay jox mu naan wala danga koy jox mu takk wala. déedéet dama ne la boo jëlee sa téléphone léegi woo ku nekk États-Unis bu sonné boo ne koo diw de lay wax wéy. noonu nga mën a def xam nga fii lépp leer na da ngay gis ku tiim armel di ñaan ñuy wàcceel kaamil ku dee xalaa kooku moo gën a jafee ñaanal dangay gis ku sullim néew sëq karaw bi dugal ci téere da koy gis fii ñaati armel lañ fi suul bon liggéey bu leen ne amut am na ñoo xam ne famille ba tas na ñoo nga toog fenn ñenn ñi duñu sëy duñu liggéey ñenn ñi duñu am soxna ñenn ñi dootuñ ñibbi seen mbokk ñenn ñi dootuñu tegaat seen tànk seen place te wallaahi wal kitaabi barke alquranil karim yàlla defu leen ko nit leen ko def am na ñu tëdd ci kaso bi rey nit wallaahi wal kitaabi nit leen xabtal ñu rey nit am na ñu toog ne deq seeni doom ak seeni seen seeni jabar wallaahi wal kitaabi xam nga ne jabar ak doom mun la def loo leen rendee ñoom ñaar ñëpp nit a leen ko def yéen a ngi ñàkkal fayda loo xamante ni du fi mos a jóg muy soxor iñaan ak liggéey bu bon loolu laa la mën a wax. Ah, ci ci liggéey bon boobu noonu nga nga wax fii sànq euh, képp ko mu dal bu ñëwee ci Thierno dina ko dina ko ci dimbali. man ku ma xam-xam nga ni dindi liggéey moo gën a yomb ci man summi mbubb ak mën di doon. liggéey bu mu doon bu xësul rey ba pare dindi ko moo gën a yomb ci man summi mbubb man Thierno Moussa ci ban diir nga koy dindi. liggéey man su sam sama garab bu laalee sa yaram wàcc rek nga teqali liggéey. fi ma nekk nii ak liggéey bu mu mën a doon. déggoo ma de dama ne leen liggéey bu rëyul ba pare liggéey bu rëyul mun naa ko lendi man Thierno Moussa te loolu ku may dégg nga xam xam ne xam naa ko. loolu moo lay jaral ngay ñëw ci àllukaañ bi. àllukaañ dama am facette bu bëri bu ma si ñëwee fii yéen li ngeen di def dem fenn di connecté wu man fii laay connecté wu. ak lan ngay connecté loolu mooy jafe na xam gis nga fii fii laay defee sama lépp. xanaa garab yeeg yooyu. mën na nekk. parce que jamono yi ñu toll nii rek nii nit di jëlee avion dem Dubaay wala feneen di jëndi leneen man si àll bi laay jëndee sama lépp fii laa am lépp maa yore marché ba am kenn mënu ko tëj muy àll bi lu ma neex ma def ci. léegi xam nga laa bëgg lan nga ma mën a wan a wan fii fii fii ñu toog exactement lu extraordinaire loo xam ne euh, mën naa ko jox waa internet yi ngay seetaan. mooy ma wan la jaar-jaar yu yàgg yu am ay at foo xam ne fii maa fi tegoon sama loxo. fii maa fi doon toog lu bokkut ak kurus bi eh, fii nga xamante ne der bii nga xam maa fi indi léegi. lii deru lan la. lii der la rek deru tabaski la. xar waaw deru xar la deru tabaski la kese amul leneen moo nga jënd sajaadi ci marché bi moo yem ci ka ci ci tali bi laa ko jëndee. mais gis naa nga yor benn kurus bu gudd ak ak benn bitel. waaw kurus bi moom sama kruus la. jullit bu ne day am kurus. ñaata per junni junni per la. kon chaque jour boo toogee fii boo fi ñëwee di nga di nga wirdu junni mën naa ci wirdi sax te du junni bi balaa ngaa àgg ci oto bi li may wirdi man bëriwut mën naa ko def lu yomb laay wird junni bi mot balaa ma àgg ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent waaw. voilà léegi ku la bëgg a jot ñu ngi ci jeexantalu émission bi képp koo xam ne bëgg na la jot nan lay def ba jot ci yow. mu def 77 541 12 81 77 541 12 81 wala 624 20 76 wala 872 84 84 872 84 84. acca léegi euh, euh, ginnaaw loolu ci ci numéro téléphone yi képp ku la bëgg a jot également ndax dafa am ay bés yooyu taamu euh, ci liggéey wala bés yoo dul taamu ndax dañuy faral di gis ne yenn sëriñ yi dafa am bés yoo xam ne duñu ci duñu ci liggéey. ñun nag sama biir kër la ñuy liggéeyee. Bayax huit heures à dix huit tous les jours équipe bi fay nekk bàyyi nga leen fa ñoo ngay liggéey ñooy ñooy ñooy joxe garab yi huit heures à dix huit heures tous les jours. voilà ñu bàyyi leen nga wax kàddu gu mujj gi. Euh, sant yàlla gërëm leen ñaana leen ngeen ñibbi si jàmm balu leen àq bal ñi ñuy seetaan àq te sàkk ñoom ñu bal maaq barke sëñ Abdoulaye. jërëjëf euh, Thierno Moussa la woon donc euh, ñu amoon mbégte nag euh, doon ko dalal fii nga xam ne nag moo di àllub kaañ doon waxtaan ak moom jëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ne donc mu ngi koy def fii ci àllu kaañ nag nekk na lu lu lu lu am am solo mais également lu ñu lu ñu war a découvrir la ñu jaajëfal leen ci ànd beek seen programme Thiès Info.